cheikh bi yow sëriñ saaliw sa ànd ak moom kenn mësta ànde ni teral ko sab jaam cheikh bi yow sëriñ saaliw sa ànd ak moom kenn mësta ànde ni teral ko sab jaam cheikh bi yow sëriñ saaliw sa ànd ak moom kenn mësta ànde ni teral ko sab jaam di nuyu équipe bu télévision bi yëpp Euh, defoon nañ fi daaw di set avril waaye daa tombé ak mbas mi moo taxoon ñu daanaka amaluñ ko woon ci ndigalu euh, kilifa yi nga xam ni ñoo ŋànk santé réew mi euh, ci jamonoy couvre-feu sax la ñu fekkoon na gëni daaw moo tax ren daaw amul woon waaye ren yolomal nañ ko ndax mbas mi kat ba léegi jógu fi waaye ci ndimbalul suñu borom mel na ni dellu na ginnaaw ba ñu ngi am yaakaar ci mu jeex du du tere nag ñu tenir ci compte ndax lépp loo xam ne ay mesures barrières la danañ ko respecté nit ñi digal naa leen ñu sol ay masque digal naa leen ñuy raxasu boo ko génnee sax gis nga ni coin bu nekk def nañ fa fu ñuy raxasoo hmm. masque yi euh, jënd naa ci lu bare bare ba ku mal ni Mor Isha na ko distribuer ci biir biir biir biir mbooloo mi euh, kon jël nañu ay matuwaay ci wàllu woowu waaye ren woyefal gi tax na euh, ñu ñu ñu xaw ko xaw xaw ko yaatal tuuti boo ko seetloo am nañ sax autorisation nguur gi defal nañ mu autorisation wu def manifestation waaye euh, ci sama xel maa jàpp ni rek duñ la may lépp nga jël lépp bëgguma dajale mbooloo mi may tante noo ne ma daan tante nga xam ni day dajale mbooloo tax ma yemale ko rek boo ko seetloo ci biir kër gi léegi la fi commandant gendarmerie bi ñëw ma ne ko moom de xam naa sax euh, liggéey bi dina gën a yomb ndax mel na ni tàntuma ci biti ci biir kër gi laa tànt ngir yemale rek euh, bëgg a sartoo ak euh, li nga xam ni moom la autorité sanitaire yi digle moo tax ci biir kër gi la ñu tànt war fee amal sunu sunu sunu cant danañ ci bernde danañ ci danañ ci danañ ci jàng al alxuraan danañ ci jàng xasaay sunu Tuubaa noonu ma ko Serigne Cheikh digal wan kay moom Touba googu nga tudd ñoom bu ñu ñëw sax ndax Touba eh, bernde yi nga xam ni moo jëm ci daara yi Serigne Saliou Mbacké moom Serigne Cheikh ndax man bu ma nee Serigne Saliou mooy Serigne Cheikh daaraam yëpp damaa fas yéene ñu ñu ñu bernde leen moo tax nee waa Touba yéen bu leen ñëw ci njiitul Serigne Babacar Mbaye nee leen toog leen eh, universel Assane Fall Dia ak universel Ousmane Fall Sarr ñoom danañu féete foofa ngir mën a bernde daara yi ndax cant gi kat bu leen fàtte ni yëla ji mooy bernde moo ci ëpp solo ren bi bernde te loolu mën nañ koo def fu nekk waaye bu weesoo foofa eh, fii eh, danañ ko fi def taalibe yi dinañ ñëw ay buñ ñëwee danañu sëriñ bi danañu suturaal danañu sàmmoonte ak loolu ngay bañ ngir ba du fi waaw yëg-yëg bi nag ah loolu day moom ñun on fait que perpétuer le euh, maanaam maa ngi wax sax ay baatu maanaam dañuy ñun dañ fay nekk rek ngir wéyale liggéey bi nga xam ne moom la dara ñun euh, dañu fee rek suñu borom daa dogal rek nu nekk fi waaye ñun dañ fay fekk liggéey boo xam ni euh, kilifa gi def koo liggéey suñu jàmbaar jooju sunu yaakaar jooju ji danoo fekk mu ànd ak sang bu tedd ba sëriñ Touba sëriñ Saliou dajeem boobee mu dajeeg moom may ko mayam yu rëy yii ñuy wax ci liggéey boobu rek la ñu ne di ci barkeelu waaye nun sunu yoon newu ca ndax ñun dañ caa danoo xamul nu mu tëdd waaw lu ñu fi nekkee daal mooy fexe daal liggéey bi ñu dëgëral ko ñoŋal ko seet lu koy wéyale lu koy jëme kanam ànd koog bokki taalibe lool daal mooy yëg-yëg bi